bataaxal bi nu doon liir di ko liir ci turu ma 12 Benno Bokk Yaakaar muy kuréel bi daje tey li liñ ci wax rek mooy que ma 12 mooy premier député yi nga xam ne ñoo gunge woon Macky Sall ci assemblée nationale ci diggante 2012 ba 2017 loolu mooy ma 12 mouvement des anciens députés de la 12e législature donc ñuy wane ni ma 12 boobu mu ngi continuer di jàppale coalition Benno Bokk Yaakaar ak président de la République beneen bi MAD 12 mu ngi ñaawlu euh, ni nga xam ni moom la ñuy defee politique à l'heure actuelle ñu koy wax ci ñu koy tënk ci ñaaru baatu tubaab se servir et non servir ñu jàpp ni ñun politique ni ñu ko jàppee au niveau de MAD 12 mooy dox soxla askan bi moo xam ñi ci quartier yi maanaam soxla politique askan bi yëpp soxla moo xam ci biir quartier bi ci village bi ci commune bi ci ci département ba ci région ngay dox euh, soxla askan boobu donc loolu mooy liggéeyu MAD ñu jàpp ne aussi MAD dose wax dëgg yàlla ban génnee assemblée ba léegi kenn musi leen a dégg moo xam ci presse bi ak ci média bi euh, ñuy def li naan euh, euh, joxe loxo xawma nangu kii maanaam ñuy ñuy ñaxtu wala ñuy yàq de de deru autorité yi wala ñuy wax ci président de la république lu ñaaw parce que ñun du ñuy doxale noonu maanaam dañuy dañuy jàppale président ci ngor ak ci dignité donc loolu ci loolu la MAD 12 inscrire di jàppale président Zahir ak baatin ci ngor ak ci dignité parce que nag euh, wax ji bëri na mais li fi président def si volet yëpp duma dugg ci détail moo xam sur le plan culturel sur le plan économique sur le plan social sur le plan de l'équité territoriale ah sur le plan de de réalisation au niveau des des sites religieuses maanaam ci ci këru diine yi ci këru aado yi ci këru catholique yi ci wàllu modernisation des cités religieuses li mu fi def ak ci wàllu sécurité ci wàllu éducation santé donc loolu kenn du ko naatable donc loolu rek doyoon na wax dëgg yàlla képp ku yeewoo Sénégal nga jàppale président de la république kon ñooñu loolu mooy suñu dëgër lay ñuy continuer di jàppale président de la république ak Benno Bokk Yaakaar ci gàttal daal ñuy wane ni MAD 12 bi nga xam ne moo toog fii tey lépp loo xam ne mooy orientation politique buy jóge ci Benno Bokk Yaakaar ak son président muy le coordonnateur ou le président Macky Sall ñun ci loolu nañuy wéy MAD 12 nag mën nañ koo méngaleeg. benn détachement armé boo xam ni pare nañ ils sont au garde-à-vous di xaar kilifa gi ñu koy wax commandant bu ne ñu bàyyeel ñu bàyyi bu ne ñu defal ñu def ñun foofu na toll muy Maddouz Benno Bokk Yaakaar ñu leen di gërëmaat di leen santaat. donc euh, sur notre plan d'action figure en première ligne euh, la question de voir comment faire pour conserver le pouvoir jusqu'à l'horizon 2035. c'est le président a conçu un programme phare révolutionnaire sur lequel doit se baser le Sénégal pour atteindre l'émergence économique et sociale, le PSE. Donc, les équipes qui l'ont conçu sont là et travaillent d'arrache-pied pour que, en tout cas, les objectifs de ce plan soient atteints. Donc, nous, en tant que porteurs politiques de ce projet, nous mettrons tout en œuvre pour accompagner le PSE jusqu'à son accomplissement intégral au bénéfice des populations. Donc ça, c'est notre première orientation, en tout cas notre première volonté politique, et nous travaillons par rapport à cette dynamique. Voilà, merci beaucoup. Oui, nous Mais nous, nous la faisons avec responsabilité, avec respect de nos concitoyens, mais dans les règles de l'art. La, en bon démocrate, en bon patriote, nous nous sommes toujours opposés à la justice. Nous avons toujours milité pour, en tout cas, rendre la situation du Sénégal, la situation du Sénégal meilleure. Nous avons été opposition, nous nous sommes battus pour venir au pouvoir. Mais dans la légalité, dans la dignité, dans la paix et la cohésion sociale, mais dans le respect aussi des principes républicains. Donc c'est sur cette, en tout cas, ligne, nous n'allons pas descendre de notre ligne originelle. Nous sommes des républicains purs, nous sommes des patriotes, nous respectons la République, nous respectons les organes et les gestions et les hommes qui les incarnent, et par conséquent, nous sommes prêts, en tout cas, à utiliser tous les moyens légaux, constitutionnellement légaux, et qui nous sont permis pour pouvoir, en tout cas, nous mettre en face de ses opposants qui ne font que vendre le chimère aux Sénégalais, qui ne font que prôner la violence hein, et la terreur. Et seront en tout cas en face de nous des gens qui savent opposer. allah et nous ferons tout pour leur barrer la route parce que ce Sénégal-là, des gens, des hommes de valeur, ont travaillé durement pour pouvoir le mener ici à ce niveau de développement. Des gens de valeur, des présidents de valeur, On travaille pour conserver les piliers de la République. Donc, pour jamais au monde, pour des intérêts purement personnels, matérialistes, en tout cas, ou des intentions, des calendriers ou des agendas cachés, nous nous permettrons à des opposants opportunistes, populistes, mais ensuite euh, qui ne savent pas en réalité quels sont les enjeux stratégiques du moment. que ce soit au niveau international, au niveau continental, au niveau sous-régional, mais qui ignorent la plus petite <coughs> réalité euh, sociologique du Sénégal. Donc ils auront en face de nous des gens prêts, en tout cas qui sont au garde-vous, bien armés politiquement, bien armés moralement, bien armés pour en tout cas faire face à à à eux. D'abord maa ngi leen di nuyu si li ngeen ñëwee ci wuy ci sunu suñu woote bi. di gërëm aussi suñu collègue yi nga xam ne bàyyi nañ seen yitte yëpp ñëw wuy si lii dafay wane seen gëm-gëm dama lay wax ni la boobu ba tey 2017 ba 2022 foog naa ni mat 2012 yaas yaasiwul yaa fusul lépp luy élection lépp luy activité politique ñun ñëpp ñu ngi si dugal seen loxo parce que ku nekk fii responsable nga fa nga dëkk am na ay militants yu nekk sa ginnaaw benn objectif nga am mooy président de la république Macky Sall bépp woote bu mu woote bépp tëgg bu mu tëgg dinañ ko wuy si avec la manière donc euh, même bu fekkee ni am nañu ay am nañu ay perspectives par exemple d'ici 2023 incha allah war nañu organiser un grand rassemblement au niveau national pour euh, wax suñu xalaat ci élection yi nga xam te ne moom lañu jëm en 2024 pour wanewaat aussi comme ni ñu koy defee chaque jour suñu ancrage ci biir coalition benn Bokk Yaakaar mais pour wane waat gëm bi ñu gëm ak détermination bi ñu am pour ànd ak le président. jaral nee na ba ñu jot pouvoir bi jaral nañu lu ko raw ba ñu conserver pouvoir bi. parce que bu dee capacité politique góor ñi jigéen ñi ànd ak coalition benn Bokk ak ànd ak le président Macky am nañ ko bu dee vécu bi am nañ ko bu dee légitimité bi am nañ ko bu dee xam-xam bi am nañ ko donc pare nañu ñoom lu mu leen jaral rek dinañ jaral du ko raw parce que malheureusement opposition bi ñu am tey opposition boo xamante ni opposition bu avant ay aventurier rek ñoo ci nekk te jàpp naa ni sénégalais yi seen bopp waruñu nangu koo xamante ni xamul réew mi lu mu woote lu ñu woote fitna la lu ñu woote lu ñu woote loo xamante ni du loo mën na du lu mën a jëmale Sénégal kanam donc ñun lu mu leen jaral ba ñu jëli ko dinañ ko jaral ba ñu confesser vers le pouvoir incha bay jël yoonu boppam mënoon naa am ngoru li ko président de la république Macky Sall dénk mu bàyyi ko keneen koo xamante ni nangu na ànd ak président de la république Macky keneen koo xamante ne am na ngor toog ak moom am na ngor des ci biir coalition bi jël poste boobu mu mu mu yore tey fi tey jàpp naa ne ñëpp xam nañu frustration moo tax mu génn yàggul dara juillet 31 juillet moom moo doon gërëm Macky Sall tey suñ ko defoon président assemblée moom mooy jëkk porté candidature Macky Sall donc dañu war a arrêté di saaga intelligence aux sénégalais yi beneen bi mooy li mu war a wax sénégalais yi mooy 200 yi nga xamante ni mi tuuti crédibilité mais koo xamante ni sa bopp ngay lijjanti euh, problème personnel ngay gérer kooku jàpp naa ni su ñëwee gis nga jigéen ñi fi toog ñëpp dina xam ne am na jigéen ñoo xamante ni mën nañu xeex ak moom te dinañ jàmbaarloo moom incha allah président Macky Sall amul jotu wax ci fi mu toll nii li ko ñor mooy wàññi dund bi li ko ñor mooy wàññi location bi. li ko ñor mooy li nga xamante ni dina permettre sénégalais yi nekk dans de bon conditions de loolu moo ko ñor mais dama lay wax ni la euh, Barthélemy Diaz euh, Ousmane Sonko maître Doudou Ndoye yenn constitutionnalistes yi ñoo ni juridiquement du loi du constitution boo xam ne mën na ko interdire mu nekk candidat en 2024 beneen bi politiquement góor ñeek jigéen ñi nga gis mën nañu porter combat bi mën nañu xeex mën nañu jàkkaarloog ñëpp ba ñu amaat beneen mandat historiquement boo xoolee li mu def ci social santé éducation ak leneen ak leneen dafa nekk koo xamante ni dara mënu ko tee mënu ko mënu ko mënu ko tee nekk candidat en mille 2024 bu fekkee ni candidat la jàppal nañu dinañu sollu ba dëgër takk ba wow kongo pour xeex pour 2024 ñu jëliwaat pouvoir bi